xamanteni dafa tuxal élection yi dama am lu ma metti metti metti mais sentiment bi ma gën a animé woon mooy sentiment wu euh, russe c'est-à-dire honte sentiment wu honte pour le Sénégal ak démocratie ak taaram ak ni ñuy bàkkoo fépp ci àdduna ñu mel ni ñun ñuy ay militants, euh, nekk ci espace bi di xeex euh, fépp ci Sénégal ak fépp ci àdduna dañ ñuy woo sommes au Sénégal di bako démocratie fait en Afrique on a contribué à faire émerger un mouvement citoyen qui nga fait ñu démocratie di xeex droit de l'homme ak yi ni mel euh, ñun Nous, Sénégal Sénégal invité ci pour exemple Sénégal bi a démocratie et ce qui est le moins connu d'ailleurs nous dem en Europe Sciences Po à Paris, que ce soit Man Malal, Nyom on a animé plein de conférences avec des jeunes français sur les questions de démocratie, du Sénégal, du Bac du dem dans des collèges et des lycées en France, du a animé une conférence avec des jeunes français, du len Sénégal, avec démocratie au Sénégal. Ouais, du partout dans le monde, di dem Columbia University di dem un peu partout aux États-Unis nyom Sofia il a pendant des semaines elle a donné des cours à Idaho University mochat euh, auprès des jeunes américains ci mbirum démocratie di wax mbiru Sénégal donc lolu yep lolu ñun suñu mais bari na ay sénégalais yi nga xamante ni ku nekk ci y muy ay journalistes yu lëkkaloog yeneen journalistes muy juste des citoyens qui vont et qui viennent fep ci aduna dañ daan dañ daan Sénégal lolu le Macky Sall et et pire encore et la lecture que j'ai eue moi, Macky Sall le colloque, ñi nga xamanteni ñom ñoo un instigateur ou loi 23 juin pour pour pour pour indi benen loi bi nga xamanteni c'est encore pire que celle qu'on a combattue le 23 juin Macky Sall sax ak soxnaam ñu ngi woon buntu assemblée donc ñooñu la lëkkalool ñu indi loi gi nga xamanteni coup d'état constitutionnel que nous sur le dos du peuple sénégalais ci nous élection yi peuple sénégalais de taxaw moi de la prison j'ai vu la mobilisation des sénégalais pour dire non pour que drapeau Sénégal boobu nga avec avec avec avec euh, euh, avec vraiment toute la fierté qu'il y a que nous sauver journalistes yi di def terrain bi li am pour barrer la, la route à, à, à, ce projet funeste gis avons lu lu leen ci dal ab Sénégal, Seneweb gis nañ lu ko ci dal gis sur des cas de torture et de violence sur les journalistes et les sénégalais globalement taxawaay boobu gis Nous ko gis le conseil constitutionnel aussi avis bi mu pour ne Macky Sall lii amu C'est droit bi un projet de loi bi a été voté ngeen ko assemblée nationale décret bi nga jël pour abroger décret bu convoquer un corps électoral teguwul ci constitution mu teg ko nële mboxoñ ko sànni ko ci poubelle bi gis nañ ko gis nañu ni conseil constitutionnel joxe na injonction pour que président Macky Sall bi nga xamante ni euh, le 2 avril lay jeex le 2 avril la war a dem que ñu ordre initiative bi nga xamante ni jug na démb nekkuñu fa woon ñu ngi doon waajal conférence de presse bi mais gis nañu ni parce que bokkoon na ci man des aspects yoo xamante ni quand même daan naa ko regretter de loin mooy de voir toutes ces forces engagées mais dispersées. Vendredi passé, samedi passé, nous sommes le matin F24 nous ngi Grand Nous sommes après quelques heures après les familles de victimes sont sont le euh, terrain de au même moment nous sommes à l'élection élection sommes ngi euh, esplanade du mairie euh, fan cette dispersion là elle ne profitait qu'à Macky et hier je me disais nous y un front F24 FC 25 ak euh, Arsoun sunu élection ak toutes les synergies dañu nous ñu nous Ben ah man de jàpp naa ni loolu mooy bi est partie intégrante de cette dynamique là du moment où nous sommes F24 nous sommes ci aar et gis Sahni, sax ni manifestation bi nga front pour boobu annoncé pour le 2 prochain suba Inch'Allah, samedi 15 sur le terrain au Grand donc nous sommes ciy leneen li nag mooy maître Tine wax na ko mooy loi d'amnistie bii du leneen lu dul Macky Sall dafa yëkkati loi d'amnistie pour amnistier boppam ak ñi mu àndal loolu rek la du leneen amnistie bi Macky Sall daf ko yëkkati pour amnistier boppam ak ñi mu àndal ndax gis nañ li fi xew depuis 2021 c'est vrai ñu ngi wax ci moor yi bakkan yi nga xamante ni rot na ci manifestation yi on se rappelle encore jeune boobu nga xamanteni néna ñun tailleur la mom mo ñawal bopam drapeau du Sénégal mu drapé de ce drapeau là de façon pacifique yorul ganna yorul dara di manifester pour sa démocratie que ñu xol ko tour ko bal te coow jibut yi ci mujj moy yi nga xamanteni amna manifestation yu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ici à Dakar à Colobane et puis à Ziguinchor encore donc c'est près d'une centaine de morts de 2021 à maintenant. Tous des manifestants. Euh, ils sont handicapés à jamais C'est na ñi nga xamante ay C'est laago la ñu léegi c'est prothèse c'est prothèse C'est des ñi c'est des borgnes de bët dafa Nous à jamais loolu en fait ay ay ay ay ay ay mandarga la yi nga xamanteni dañ koy dañ koy soxale diko dundale A à jamais ci s'en giiru dund waxatuma nak kaw torture yi nga xamanteni traité convention internationale yi nga xamanteni Sénégal signé nako yépp contre la torture dañ ko foulé au pied ka bi di gën ak patent moy suñu frère Pape Abdoulaye Touré c'est là Pape Abdoulaye mom lañu xam sax mais man tay man bima ma en en juin euh, mai fin mai